baale nan ko baale ku baalewul Seex Fallu bu leen ko baale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 ku laaj may la nga gijal fallu xaliila ana muhammad muxtaar maa la ko wax yow seexu na fadlu yaa moom yëf yi may ma ci laa law laa ko seex fallu xéewal yi walwali kon duñu walwalee ti na ngeen woy seexu na fadala fadlun asimu sarifun farin fatinun mbàkkeng bu soobe la mbàkkeng bu soobe la mbàkkeng bu soobe la ki mooy njiite mooy wasi la lor na xéewal yi baawaan dootu seex aban ko sopp seex fallu xéewal wër la lor dëddu la man adaa seex fallu fi aban min xëy ilaa man alaa tarne bi xam nañu la loo wax borom nguur ga gaaw koo def ne yaa ko juboog waadu diwaane seen mbooloo ma xam nañu la bayti wilaayati yaa yor fondement boobu wér sëriñ nga yaa jiite mboolem ku ñu waliyu la gaal gaa ngi nii teer ku nekk ba tànn yaa xale ku dugg gaalu sëriñ bi fallu àggale la fallu la yàlla faale nan ko faale ku faale wul see fallu bu leen ko faale